إذا ابتدى المريد بالتوحيد منتهجا مذهب أهل السنة مع الجماعة najaa min fitna ci ñaari bay njëkk yi dafa wax ne képp euh, ñi am xel ak ñi amul xel ñëpp war nañoo xam ne ku jëm ci sunu boroom te jaar ci yoon wu dul yoon wii dëgg dañ koy dàkku dañ koy dàq du yegg ca sunu boroom lii dëgg nag mooy képp ku jëm ci sunu boroom danga war gëm yàlla di ko jaamu tey rafetal gëm ga ak jaamu ga te mooy liimaan danga tënku ci liimaan ak lislaam ak lixsaan te tënku googu balaa wér da jàng xam-xam yi nga xam ñooy jàngale eh, ñetti xaaj yooyu nga war a jàng tawxiid bi nga xam mooy jàngale ngëm jàng fiq bi jàngale lislaam jàng tasawuf bi jàngale lixsaan te yooyu yëpp boo koy def nga dugg ci biir ngir mi nga xam ne mooy ngir mi nga xam ne ñi ëpp ci mboolam jullit mi ca gannaaw yonent bi ba léegi sallallahu alayhi wa sallam ñi ëpp ci mboolam jullit mi bi lislaam sosoo ba léegi ci yoon woow lañu la ñu nekk te mooy yoon wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon moo ay saxaabaam ci wàllu pas-pas ak ci wàllu jaamu yàlla ak ci wàllu defaru xol ak i jikko ngir leeral nag ci tënk rek loolu ñuy tëddee mazhab ahli sunna wal te mooy yoonu yoon wi nga xam ne ñi ëpp ci mbooloom jullit mi ci àdduna ba lislaam soso ba léegi ci lañu nekk eh, te muy yoon wa nga xam ne mooy wi yonent bi nekkoon ak ay saxaabaam sallallahu alayhi wa dañuy wax rek ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu delloo ci boroomam ba Seydina Abubakar wuutu ko ba wuy ji boroomam Seydina Omar wuutu ko ba wuy ji boroomam Seydina Osmaan wuutu ko ba wuy ji boroomam ko Seyd bi Seydina Ali yu ñëwee ibnu Abi Talib karamallahu wajhahu wa radiya anhu wa an jamii xulafaay rashidin rasuli sallallahu alayhi wa ci jamonoom moom Seydina Ali ay ay ay juyoo ay fitna ay ñàkk déggo ak i daa am ci biir jullit yi ba ay jaamaarloo juddoo ca bi jamaar yooyu amee nag am ab kuréel ci mbooloom jullit mi ñoo xam ne ñoom dañoo beru teqalikook mbooloom jullit mi gën a bari dem ber seen yoonu bopp muy kuréel bi njëkk a wuuteeg mbooloom jullit mi ci taarixu lislaam ñu leen di tudde alxawaarij ñoom ñu gis ne ginnaaw ak juyoo daa am ci biir julli daal ba ñuy xeexoo léegi kon nañ bàyyi rek far euh, kenn bañ kenn bañ jiitu ginnaaw ku jiitu kii mooy jiitu kii di jiitu la ñuy xëccoo kon nañ far bàyyi njiit ci boppam rek bu ñu wut njiit daal nañ bàyyi noonu rek kenn bañ kenn bañ a yilif kenn kenn bañ a topp kenn loolu mooy cosaanul euh, kuréel booba juyoo yooyu di dox di dox ba yàgg euh, ña doon jaamaarloo mujj mel ni jaamaarloo ba jeex na ginnaaw bi nga xamee ne Seydina Xuseyn ibnu Seydina Ali ibnu Abi Talib faat nañ ko ca Karbala ki mbokkaloon lépp muy Seydina Xasan moom ne daal laajatul xilaafa gi bàyyee na ko ki koy ki koy xëcc bu Seydina Muawiya léegi yëf yi daal di jeex mbooloom jullit mépp mépp ci mbooloom jullit mépp ànd ak moom ba des kuréel bu njëkk bee nga xam ne ñoom ñoo génnoon beru euh, mbooloom jullit mépp nag jàpp ne kon euh, daal xilaafa gi benn baat la léegi euh, kii fi des mu Seydina Muawiya moo ko yor ba ñu ba ca kanamaat am meneen mbooloo mu jógaat ne daal xilaafa gi dañ ko seetaat ndax daal nii ñu ko doxale ba mu tàmbalee ba léegi teguwul ci yoon yonent bi sallallahu alayhi mi fi jógee ki ko njëkk a wuutu waru ko woon a wuutu ki ci topp noonu ki ci toppaat noonu ki ci topp ba ci ku ñeenteel ki daal mooy ki waroon a jiitu ku ñeenteel ki nga xam ne mooy mbokkum yonent bi sallallahu alayhi wasallam kooku mooy ki ñu waroon a jiital teg njàlbeen ñi fi jaar ñëpp jaar gi ñu fi jaar tegul ci yoon daldi di beru tàmbalee dox nag ngir dëggal loolu loolu nag ay gëm-gëm yu bari mujj ca juddoo euh, ñoom ñu gëm ne xilaafa gi warul doon lu jullit yi waxtaane ba juboo ci samp ku leen soob waaye ak donnante la war a doon yonent bi sallallahu alayhi wa moom la yàlla yónni woon lam defoon ci moom ci aw ci deretam la la la la topp di wéy kon ñi setoo ci moom ñooñ ñoo ko war di wuutu saa su ne euh, kon yoonu mbooloom julli mi ci nekkul ci xilaafa gi euh, mbooloom julli mi ëppoon nag jàpp ne xilaafa gi ni mu doxe naka jekk noonu la waroon a doxe yonent bi sallallahu alayhi bi muy dem waxutoon ne na ko kenn wuutu daa bàyyi mbir mi noonu bàyyi gi noonu mooy firi ne kon dañ ko bàyyee ne ginnaawam nañ ko waxtaane luñ ca dëppoo rek noona la waaye du loo xam ne ci cosaani diine yi la bokk ba alquran war a wax kii wutu yonent bi wala sunna ko wax ndax mbirum diisoo la ak waxtaan rek mboolem mi ëpp ci mboolem julli kon loolu lañ gëm ci xilaafa mboolem mboolem mi gëm loolu ñëpp nag te mooy ñu ëppoon ci mboolem julli mi ci joj jamono ñooñu ñoo tudd mazhabu ahli sunna wal jamaa mu am ñaari kuréel yu wuuteeg ñoom kuréel bi ñu tuddee al xawaarij moo ña nga xam ne ci xilaaf ak Ali lañ bàyyi woon ñoom génn génnu topp ak ñii nga xam ne ginnaaw bi nee nañu xilaafa gi ni mu tëddee woon du woon yoon ñu leen tudde a waaye saa su nekk mboolom mbooloom jullit ñi ñoom ñu ngi tënku ci benn baat toog luy jéem a nattale yoon wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon ak i saxaabaam ginnaaw bi loolu doxee ay jamono ay kuréel judduwaat ne ñu ñu tudde al mu'tazila ñu ñu tudde al qadariya ñu ñu tudde al jabriya euh, waaye yooyu yëpp ay kuréel lañ yu ndaw ndawaan yoo xam ne ñoo feddi géewu wuuteeg mbooloo mi ëpp ci mbooloom jullit mi bi lii amee nag ñu nekkoon mbooloo mi ëpp ci mbooloom jullit mi liñ jàpp loolu mooy yoon wi yonent mi nekkoon sallallahu alayhi wasallam ak i saxaabaam te mooy yoon wu jub wi loolu lañ tuddee mazhabu ahli sunnati wal jamaa kuréel kuréelaan yi nga xam ne ñoo feddi géewu ber seen yoonu bopp wuuteeg mbooloo mi ëpp ñooñu lañ tuddee ne ñooy ahlul bidaat yi mooy ñu ne ci bidaa mooy ñu sos lu yees ci diine ji bëgg ku cee boole te bokku ci euh, wuute yooyu nag bi mu amee daa daañoo dem ba mbiri pas-pas dugg ci mbiri kilifteef rek ci la tàmbalee woon kuy wutu yonent bi ku ko war a wutu ak ku ko war sa wutu ci la woon di mbirum kilifteef rek buñ ko mën a wax ci jamono mën nañoo xam mbiri politique ci wax wax yi nu jamono rek waaye nag dem nañ ba mujj ay pas-pas dugg ci mbirum pas-pas dugg ci mbirum jaamu yàlla dugg ci mbirum nu ñuy defare jikko itam dugg ci ah, waaye mbooloom mi ëpp ci mbooloom jullit mi ñoom ñu ngay tënku ci pas yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ci alquranul karim leeral ko ci ay ci sunnaam boroom xam-xam yi topp ci ci ginnaawam itam di ko leeral nit ñi di ko jàngale ci wàllu pas bu lee ci wàllu jaam ni ñuy jaamoo yàlla it moo am mbooloo boroomi xam-xam yoo xam ne ñoom it dañoo leeral na ko yonent bi jàngale woon ca ci alquran ak sunna euh, ñi nga xam ne tam ñooy yar nit ñi di leen jubbanti defar seeni jikko ak seeni xol ñoom it boroom xam-xam yooye te bokk ci mboolem mi ëpp ci mboolem jullit mi ñoom it di jéem a xool yoon wa melo wa bi meloon sallallahu alayhi wasallam ak ay saxaabaam seeni jikko seeni doxin nam meloon ñoom it ñuy jéem a yar nit ñi ca melowoo jéem a xool yoon wu ñu jaar ba loola mën a sotti loola tax na ci biir mazhabu ahli sunna wal jamaa ay kuréel juddu ci waaye kuréel yëpp nag ñoo bokk nekk ci wenn yoon am na kuréel yu juddu ci wàllu tawxid maanaam ci ñuy jàngale gëm yàlla ñetti kuréel yu mag juddu ci biir mazhab al sunna jamaa yoo xam ñëpp nag ñoo bokk pas-pas yi ñoom ñoo ko bokkle mooy pas-pas yu dëppoog na ko yàlla jàngale ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wasallam leerale ko ci sunna ñetti kuréel yooyee ba ca gën a rëy gën caa yaatu mooy kuréel bi ñu tuddee mazhabul ashari yi ba ca toppaat mooy maturidi amaana beneen kuréel boo xam ne moom it daa wuteeg ñaari kuréel yi ci ci ci ni ñuy déggeeg ni ñuy jàngale ñoom la ñu tuddee al asariya waaye ñetti kuréel yépp nag teewul ñu ngi bokk ci mbooloom ñu ngi tënku rek ci pas-pas yi mbooloom julit mépp bokk maase tënku bokk itam jàpp pas-pas ci ginnaaw yonent bi niñ doxalee kilaafa gi ak euh, selluk saxaaba yi ak seenu euh, maandu ci wàllu jaamu yàlla ay kuréel juddu ci ay ay ngir mooy ngir imaam Malik imaam Shafii imaam Ahmad ci wàllu tawxiid ay kuréel juddu ci mooy kuréelu Junayd ak bu Bishr ak bu maaruf alkarxi ak muhaasibi ak ñeneen ñeneen waaye ñii ñëpp nag ñu ngi bokk ci biir masab ay sunna wal jamaa euh, ci mbooloo mi gën a bari ci jullit yi euh, kon ci tënk daal mën nañoo wax ne euh, ñii ñëpp ay kuréel la ñu wuute waaye ñoo bokk nekk ci wenn yoon mag bi nga xam ne moom la ñu tuddee masab al sunna wal jamaa kon ñu xamee ko noonu maanaam bu ñu dellusiwaatee incha allah dañ ci gën a yokk ay leeral ba suñu bopp gën a ubbiku ci googu wet ndax sëriñ bi dañoo digal ñu tënku ci biir mazhab boobu kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.